ñu ñëwaatay yeen seen série xaliso ki di as kan la siibale entre ki di yam matros ak ñamte mo nek ana ndax gis nañ ni akros bi nga xamantene mom la am ces derniers temps ci ni nak yone ay cadeau yu dul jeex ci ki nga xamante moo nekk ba dem na ba ki di ya mère ana daal di ci zalu ci li nga xamante mo nek bobu lay acte les gars mun nañ nak mère ana dafa dal di ya mère si li nga xamante mom la pass di yone ki di ya matrose mère boobu noonu nag zalouse la wala nak dafa bëgg protéger li nga xamante mo nek domam ndax so xolé ki di nak mère ana nag nak tassé won na ki di paas ci ben boutique yaakaar naa foofu la ñëk xamanté ba tax na ki di paas nee dina def ay jéego yi nga xamanté dina mëna tak takk di mère Anna les gars ñun ñëp gis nañ di as ba mu ñëwé ba xamni ni mère bi kii di Matros mom moy domom comme nak la wara mëna jaar ba am ki xamanté xamante ne moo nekk mère bi les gars c'est vrai Omar mo ngi nan bëgg na digënté kii di Matros ak as mais digënté bobu nonu nekkul luy rafet nekkul luy nice ñun nak mère bi rek lañ yéné ki xamanté mo as aas ba tax na nak war ko meuna tak pour rek mu daldi ñew ci si kër ga ndax ki di as mun nañ ni yorul soxna bi nga xamantene mom la mérito ça va souvenir ya, léegi nak leen rek moy am ki di nak Omar mu daldi am jabar si kër ga wala nak momi lay as mu daldi am jabar si kër ga nyari ñaari couple yooyu nak ban ngeen si préféré couple ki di ñaanko ak ki di matirose wala couple ki di ana ak ki amte mo nek as ndax man mom couple ki di as rek la soxla ngir rek mu meuna ñew defante ak mère bu nek si galé ba ci rek ki di ya as won ko ni man nak aw mo won jabar mais plito nak kuma don doon teg rek la yoron les gars ça va souffler c'est vrai nak ñu bari ñoo ngi yene couple ki di ya match rose ak ki xamte mo nek omar nak ki di ya as mënul am jabar ci kër ga ba paré nak ki di ya omar dal di fay ñew amat comme lo non day xaw don lu xawa salté motax nak ken rek mo fa mëna am te nak nañ bay ki xamte mo nek as mu dia di ya tak ñaarel pour rek mu mëna a noppalu si situation yi mu nek peut être ki di omar dina ami à l'avenir soxna so xamante xamante ne moom moo gën si moom di la wax di daje ba si beneen vidéo